bu ñu bu ñu bu ñu xoolee li nga wax. Mhm. jeunesse boobu dañu choisir seen leader. Mhm. muy Ousmane Sonko. Mhm. ay la yewen. c'est-à-dire dañu choisir ñoom seen leader. muy Ousmane Sonko. te wane nañ ko ci lu bëree bëri. loolu euh, dafay tax est-ce que loolu du du wàññi sa ay chance yow. est-ce que du wàññi sa ay chance eh. maanaam taxawaay bi nga xam ni ndaw ñi am nañ ko ci déglu Ousmane Sonko ci ànd ak moom ci jàppale ko ci xeexal ko ba li nga wax ni victoire bii tey Euh, am assemblée nationale ak opposition bi mais bu dul woon Ousmane Sonko loolu du fa am ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu ñu mën a wax ndax loolu du wàññi yow sa ay chance ci nga am benn nit boo xam ne da ngeen bokk camp te vraiment leadership bi mu am des na nga am ko yow. Euh, Pape gis nga àdduna. Mhm. nit ku nekk da nga koy nangul li ko yàlla may. Mhm. man nee naa la duma politicien la preuve. lors des élections législatives dañ ne ma amoo parrainage est-ce que dafa tax ma dem toog tooguma dama jóg bokk ànd ak opposition bi pourtant aw ma liste aw ma candidat mais dama jóg jël suma li ma am mu néew mu bari ma bokk ko ak ñoom ngir xeex ngir lu néewal doole benn Bokk Yaakaar parce que jàpp naa ne du ñoom ñooy solution pour réew mi. Mmh. donc encore une fois. Pape mmh. je vous rassure bokkuma. ci ñi jàpp ne bu dul ñoom rek musiba la. man li ma intéressé bu réew mi doxoon. damay dellu nekk ca la ma daan nekk. parce que xëy na moo ëpp noflaay amuma woon coono mais c'est toujours en plaisir d'aller à la rencontre des Sénégalais parce que li ma xam li ma gis li ma gëstu li ñu ma wax li ma gisal sama bopp taal suma oto fu ne ma dawalal fa suma bopp yegg fa gis jafe-jafe yi ñu jànkoonteel mais loolu dara dara dara dara. munu ko jox doomu aadama. kon kon Bougane bokkuloo tey ci ñi jàpp ni lii daal Ousmane Sonko tey ba mu ne ci kaso ba